jàmm seen makkaanu première chaîne de télé privée bu Sénégal benn waxtu waxtu xibaar yi nes kiis ñu dikk ak yéen day gën a fës bokk na la ca gën a fas ci bopp xibaar yi waxtaan bu doxoon ci diggante ñi nga xam ne ñooy kuréel gi ëmb kat yi doon liggéey ca stade Iba ma Diop ak ka nga xam ne moo di njiital diwaan boobee waaye naka noonu ci yenn autorités yi daanaka waxtaan ak dégg amu ci ñoom nag ñuy xam ne rek la njiiti teg seen loxo moo daal rek dalul seen xel waxtaan lu ñeel wàllum tàggat yaram ak CHAN bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy amal ca réewum Algérie gaynde nag na la seen jongante bu mujj ci wàllum match Pape Thiaw di xam ne ni am nañ ci yaakaar daal di qualifié euh, ci beneen euh, phase bi rubrique bi nga xam ne nag lañ koy def dimanche gu euh, jot ak tere sàmm nag daal di koy jagleel gox ak ci dem ba ca Sicap Mbao foofu nag askan wa fa dëkkee la ñu xam ne rek bokk na ci ay jafe-jafe ndox yu salte yi maanaam lu ñeel wàllum assainissement naka noonu itam ñàkkuk kaaraange ak na nga xam ne noonu lañ fa dëkkee daleen ak jàmm xibaar benn waxtu dañ koy door ak euh, wax ak ndaje bu njëkk lu ñeel wàllum kuréel euh, gi nga xamante ne nag moom maire yi nekk ci biir euh, réew mi doon daje ko ko jiite woon di Mamadou Talla jëwriñ gi ñu dénk wàllum collectivité territoriale gannaaw ba mu yëkkatee kàddu daal di ne xam ne ni nguurug Sénégal ci 2023 bi dana dugal lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak benn ci ay milliards lu ñeel wàllum jumtuwaay ñoo nar ko tabax. ci diwaan yooyee loolee nag bokkul ak programme ñeel wàllum Puma ak PUDC dañu teelu Mamadou Talla ay kàddoom Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le fonds de dotation et de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités li ñu war a jàpp tey jii moo di fonds de dotation ak décentralisation soo ko booleek fon bu collectivité territoriale dañuy am lu toll ci juróom benn fukki milliards ak juróom-ñeent yu teg juróom benn téeméeri million bu teg ci loole mën nañ ca yokk lu jege ñaar fukki milliards ak benn yu jëm ci CLVA ak ñaar fukki milliards yoo xamante ni ci PACASEN rural la jëm te njiitu réew mi daal de koo xam ne bu yàggul dara am na tamit lu toll ci juróomi milliards ak genn wàll bu jëm ci buuñaa bi ñu war a delloo jógee ci mine maanaam meññeef bu joge ci suuf si toll na si ñaari milliards bu teg téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent soo ko boolee yépp lu toll si téeméer ak ñeent fukki milliards ak benn dina dugg ci collectivités territoriales yi atum 2023 bii ñu ne. dans nos territoires à travers plusieurs projets et programmes tels que le PUDC le PIMA Promoville etc. mu nekkoon Mamadou uh, Talla ak taataan ay kàddoom di Mamadou Diop Mohamed uh, Thiombane gannaaw Mbour uh, dañuy ñëw nag fi nga xam ne moo di Médina foofu nag kuréel gi ëmb kat yi nga xam ne ñooy liggéey ci wetu stade Iba Mar Diop ñoom nag daanaka jamono ji guddi gu ba setagul la ñu nekk ndax it gannaaw ab ndaje mën na amal ak nga xam ne moo jiite diwaan boobe ak it yenn ci autorités yi daal dinañuy xam ne nag la ñu teg seen loxo rek dalul seen xel mujjanteel ga saak xeex xiiro amoon ci boobu lépp ndaje loolu moo wagal ñoom ñu jàpp ni foog rek ñu daal leen jox ay euh, ndàmpaay ma jigéen Diouf du Sow lañ ci àndal. njàkk rek xol bu jeex la ñu gis ci kanamu ñi nga xam ni ñooy cordonnier yi nekk foofu ci onze de la Médina sës ci muru stade Iba Mar Diop laay Diop mi nga xam ne membre la ci comité bi mu ngi dellu ci ci li fa xew. waa ah, li ko waral de mooy ni comme ni ko déggee rek euh, problème mu stade bi ndax dafa am Jeux olympiques yi ñu ko léegi ñu ne woon dañuy dëgër piir mais Ageroute yore liggéey bi dénk ko benn cabinet bu ñuy wax MSA boo ñu ñëw wàcc sur le terrain waxtaan a ñun def seen enquête kenn par kenn euh, si biir loolu yëpp ñu jël ñu jël kenn ku nekk ñu jël lépp lu ñu war a jël jël si yow ñu war ñu di dédommager bon du ko ñëwee rek parce que li war stade bi la am na mécaniciens yi am na les femmes pileuses am na commerçants yi ak tailleurs ñëpp si biir waa léegi euh, ñooñu ñëpp daje na ñoom. waxtaan nañoo commerçant yi ba finalisé waxtaan na femme yi ba finalisé ak commerçant yi ak tailleur yi mais ñun cotonniers yi dañ ñu bekk moom mu lëndam suñu bopp nag parce que waxuñu ñu dara lu leer ñu dégg ay rumeur lu ñu ko si dégg ñu dem ba am ak Azurut réunion mooy bi ñu mujj def ak ñoom ak mairie bi euh, ñoom ñu wax ñu ñun ñu dédommagé comme ni ñu dédommagé ñeneen ñi. ñoom nag indemnisation la ñu bëgg bu ko defee ku nekk xam. nooy tojee sa bopp ci nax ndax amuñu benn yoon yaakaar ci li nga xam ni digg nañ leen ko gannaaw nag ñëw bu ñu mujjee woon amal ngir indi solution ci coow la mujjee. Euh, Bamba Fall si boppam le maire maire de Médina moom confirmé na ko parce que réunion bi mu ñu woowee bi histoire bi amee wax nañu foofu nii maison de bi champ de course la koy def donc wane nañu kon école ba mënutul nekk te champ de course ñun gisuñu fa terrain bu ñu ko mën def te gannaaw war a dëgër fii te amaguñu terrain bu officiel bu ñu war a jox te commencé guñ ko ñun xanaa du ñu toog di xoole rek ba 6 mois yi mat ñu toll duñu xaar loolu ba am suñu pertement mooy ñëw foofu loolu nag dañ koy bañ catégoriquement li ñu bëgg mooy ñu dédommagé ñu jox ñu li ñu war a jox ñu dem heure bu Bamba Fall dafay projet am tax mesa kuiram bu ñu woowee tëdd ay condition buñ ko mënee ñu ñëw suñ ko mënul ñu dem seet leneen lu ñu def ci coow loolu nag lu tollook juróom-ñaari nit am nañ fay blessure ba tax sax ñu uti certificat médical jébbal ko seeni avocat fas yéene dem ci yoon lu mu leen may ñu jël ko. Majigéen Diouf dañuy dem nag ba ca diwaanu Ndar ca goxa goxaat bi di Rawo foofu nag askan wa fa tey rek autoroute bi nga xam ne moo dox diggante Dakar Tivaouane ak Ndar daal di fay jaar ñoom nag ñooy daal di xam ne ne rek nañ leen dox ak ndàmpaay gi nga xam ne dana tollook ak la nga xam ne moom rek la ñu daal di subir ci lu ñeel wàllum préjudice loolu moo waral itam ñoom jamono ji nag ñu mer ba futt lu ñu mel ñu daal di koy xamle gannaaw ab ndaje taskatu xibaar Alioune Diaga la ñuy àndal yoroon seen kàddu. nguurum Sénégal dafa décider defar benn autoroute à péage buy jaar ci sañu dëkk yi nekk ci zone raw bi yépp biñ koy yëkkatee tamit ñëw nañ fi benn yoon ñaari yoon ñetti yoon recensé ñu waxtaan ak ñun ba ci fan yi ñu jublu ñëw ñuy woo di ñu wax ni que dañuy commencer def conciliation pour xool lan lañ ñuy rembourser. dañ ni suuf si nga xam ni que moom la ñu jël dañu ko fay parce que domaine national la kooku état moo ko moom ñuy laaj rek si nguur goo xam dañ ni dañuy ñëw ñu dimbale baadoole yi ñu jàppale baadoole yi koo xam ni que as suuf soos rek nga amoon sa maam ba léegi nga si bay di si yëngal sa loxo di si yore sa njaboot. nit si lu mu nekkoon di si suturoo di si sutura ay njabootam te la mu fa amee loolu rekk la yaakaar loo xam ne que daf ñuy diviser tey jii mooy que da ngay ñëw si benn dëkk même boo daan am yomb-yomb jël dëkk bi jéggi dem si beneen dëkk amatoo ko autoroute bi daf autoroute à péage bi daf ñoo dagg dagg ñu sañu digg te bu dagg si digg bi mooy dagg na ay mbokk mi ngook dañuy dem rek ba ca diwaanu fa nga xam ne moo di njàmboor ci diwaanu Louga foofee nag askan wi nga xam ne ñoo dëkkee uh, ca gox goxaat bi di giddale daanaka sax ñoom jamono ji bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund wàllum ñàkkum ndox ñàkkum courant uh, naka noonu itam yenn jumtuwaay naam sax seenu gox uh, ñetti kilomètre rek moo dox seen digganteek Louga loolu moo waral maire ba nga xam ne moo fa nekk jàpp ni foog rek mu jàpp ci ngir dindi askan wi ci jafe yu nu mel lu nu mel ñi daal koy xam xamle ah, gannaaw ab ndaje ba doon amal ak taskatu xibaar yi ko jiite woon ji ab conseil spécial am ju yoo ci turu Mor Ngom la ñuy teewlu ay kàddoom. waaw ah, effectivement commune moom boo gis ci rek am na ay jafe-jafe parce que nit ñu aussi tamit dañoo war a am. ñi ku ci nekk fa nga nekk da ngaa war am ndox da ngaa war am courant da ngaa war a faju da ngaa war a jàng da ngaa war a def lépp yooyu également nag ay compétence transférées yoo xam ne bu ko état bi transféré maire yi kon loolu maire yi la war kon jafe-jafe yi moo tax ñu teg la ku ñu ci teg nag jafe-jafe yaa yaa war indi mais dama ne ci espace bi defagum bu jàpp bu ñu demee ba cinq ans jàpp nañ commune bi waaye urgence commune bi bokk na ci tey jii benn ñu am benn centre de santé bu moderne boo xam ne euh, képp koo xam ne am nga problème santé boo ci demee ba nga fay tamit ci taxawal ay mutuelle de bu dëgër dëgër boo xam te ne maire dana ci apporter subvention bi ni mu chéré dañ ko mën a allégé bu baax a baax a baax ba loolu te da nekk loo xam ne dana la jàppale baax a baax. emploi des jeunes foo leen ko. mais également aussi daal yi mu fi defagul jàpp nañ ne bu espace de cinq ans yooyu yëpp danañ ko au mu ngoog dem nag ci diwaanu Saly foofee nag daanaka askan ci bari ñu fa dëkk ah, ci diwaanu tourisme rek la ñuy yëngatu ci jamono nag bi nga xam ne ah, secteur bi lee dafa rek daal di ah, tàggate mais loolu moo waral Cheikh Diouf dëkk ci gox boobu lay jàpp ni fokk rek ñu gën a tàggat rawatina nag jigéen ñi ci wàllum peinture loolee daat na ci taxaw naka noonu itam daal leen tàggat dañuy teewlu Cheikh Diouf ay kàddoom moom jàppal ne ñaar rek ñoom ñoo des. muy marché bi pour bu ma appliquer sama xam-xam ma am fu ma ko écouler te loolu wax nañ ci léegi nekkul li nga xam ne rafle na sali beneen bi mooy ñu mën a am ay moyen moyens yi ñaar la mën a nekk parce que boo amee xam-xam soit nga gagné un marché te ñun ñëpp xam nañ ne booy euh, boo soumissionné marché ba gañee ko am na lu ñuy wax avance de démarrage lu mu tuuti tuuti ñu jox la fonds pour nga mën a démarrer après boo produire ñu fay la leneen li aussi mën nañ leen jàppale ci ay formation euh, AG wu FONGIP donc waxtaanoon nañoo moom ba moom aussi moo ngi préparer disposition yi pour mën a euh, financer jigéen ñi nga xam ne ñoom ñëpp dinañ leen former fii ci sali dafa jàppandeegul moo tax ju euh, juñuñu ko fii mais pour wax leen ne rek piste yooyu ñoo ngi koy seet aussi te yaakaar ne am nañ ci yaakaar bu baax a baax mais loolu nekkul la nga xam ne mën na téye jigéen ñi parce que nag ku dégg liñ fi wax tey jigéen ñi dañuy finançante seen biir donc financement yooyu ñu doon joxe seen biir mun nañ ko orienter pour produire loo xam ne buñ ko jaayee mu gën a andi bénéfice gannaaw loolu dañuy wax ci leneen lu ñeel wàllum njëng ak euh, njàngale mi ak coppite yi nga xam ne moom lañu ñu war a def suñu euh, ñeel wàllum système éducatif ka nga xam ne nag moo di inspecteur académique bu Pikine moom daal dinay xam ne ni ànd na euh, ci lu ni mel ndax rek la mu ci yokk itam ne fokk rek ñu andi lu nga xam ne dana dëppoo ak li nga xam ne mu am ci biir réew mi gànn seen la ñuy teew lay kàddam su ma yeboo ne sax du ci école bi yegg xëy na école comme euh, euh, c'est une mi c'est école dafay refléter la société moo tax foofu wàllum violence yi c'est euh, passé inaperçu te école ci boppam dafa war a xeex violence loolu moo tax xëy na attention bi ñu porté ko moo tax ñun suba deuxième jour bi dañu ko jagleel maanaam ñu jokkoo ci wàllum violence ci biir école bi beneen mbir bi mooy wàllum programme yi ndax élève su ma yeboo ne euh, am na sax sañ-sañ joxe euh, gis-gisam ci wàllum programme ndax ñoom ñoo koy jëfandikoo mais dama am yaakaar ne mbir moom pour ñu koy saafara ci yeneen instance lañu ko mën a saafara heureusement que ministère éducation nationale assise yi wane na ko ñun ñëpp constaté nañ ko programme yi moom war nañ ko seetaat pour gën ko méngalee ak suñu réalité mais pour que citoyen bi type de citoyen bi ñu bëgg a former mu mën a jëriñ réewam ëllëg loolu xalaat bi door na ci ministère de l'éducation national te li ñu naan cadrage maanaam yoon wi ñu war a jaar pour y parvenir defar nañ ko et incha allah bu buñ ci àndee ñun ñëpp dinañ ci egsi Gana Sène daal di yëkkati yooyu les kàddu gannaaw ab séminaire ba nga xam ne académie bu Pikine ak waaye ñoo ko doon amal foofule uh, ca uh, sali dañuy wax nag ci wàllum tàggat uh, yaram ak CHAN bi nga xam ne nag jamono ji ñu ngi koy amal ca réewum Algérie gannaaw ba mu amee ndam ci kanamu Côte d'Ivoire daal di nërmeelu ci kanamu Uganda gaynde yi nag ñoom wala rek jongante seenub ñetteelub match niki tey seen diggante ak RDC Congo lay doon gannaaw ab ndaje taskatu xibaar Pape Thiaw ma leen yor daal di ne xam ne ni ñoom am nañu yaakaar ni dinañ mën a qualifier euh, ci beneen phase lu ñeel wàllum compétition bile kàddu yi Pape Thiaw la ñuy teewlu. C'est sûr, nous on est focus euh, le plus important c'est c'est c'est notre objectif suñu objectif nag daanaka ñoo ngi ci euh, ba léegi maanaam daal di euh, qualifié ci euh, deuxième tour bi amoon nañ nag opportunité suñu diggante ak Ouganda daal di qualifié waaye nag jamono ji yaakaar naa ni rek ñaanu ñoon itam nekk ci position bi nga xam ne RDC ci la nekk ndax yaakaar naan suñu jongante ak moom ah, bu ñu amee sax daanaka match nul daal di qualifié waaye nag gagné rek la ñu daal di bëgg jafe-jafe yi ñu nag ci wàllum ah, penalty loolu yaakaar naa ni ci ah, football la bokk te pourtant sax nekkoon na suñu foor ndax bu ñu xoolee ci compétition yi nga xam ne. jongante nañ ko waaye eh, ci sax eh, lu ñeel wàllum yenn jongante rek eh, daanaka suñu ay pelanti dañ ko daan dugal te sax bu ñu daa dem tiro bi itam daanaka suñu pelanti yëpp dañ ko daan dugal li nag itam day wan ni rek bu ñuy am ay penalty ñu ngi am ay occasion te yaakaar naa ne loolu am solo la suñu digganteeg RDC nag xam nañ ni du nekk lu yomb waaye. on reste focus sur notre objectif et voilà, et c'est ça. jongante boobee ñaar ko xaaraane fukki waxtu ak juróom-ñeent ci tey ah, ci ah, guddi comme niñ koy defee dimanche bu jot rubrique bi nga xam ne moom la ñu jagleel ah, wàllum diwaani rek tey daat dem fa nga xam ne moo di Sicap Mbao askan wañu fa fekk nag daat ne ñi yàddu ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund bokk na ci nag ñàkku kaaraange naka noonu itam wàllu assainissement ñoom ñu jàpp ni fokk rek njiit yi daat leen gëstu ñu andi ay saafara ci jafe-jafe yu ni mel itam ndaw yi rek bu ñu bëggee rek daal di foo daanaka amuñu sax ay bërëb yu nga xam ne mënees nañ fa demandi tere sàmm lañ ci àndal. ci jàmb commune si Sicap Mbao ñu gën ko xamee nag ci tali Mame Diarra muy koñ bi nga xamante ni nag jamono ji daanaka xar kanam bi tey na xel la. depuis 98 man laa fi ñëw boobu ba tey maa ngi dëkk fii ci biir ndox mi lañu dëkk depuis boobu amul at bu ñëw boo xam ne sonnuñu ci ndox mi. amul at bu ñëw boo xam ne suñu kër yi dugguñu ndox amul at bu ñëw boo xam ne toxuwuñu fii ñun ñu fi dëkk yëpp ñu tox dem feneen ba ndox mi di jàll ñu doog a ñëw luñ ko waral nag ñun lu ñu gën a sonal mooy tiwo bii tiwo bii bi ñu def fii bi ñu yaakaarloon lii kii lu xonq lii fu mu nekk féew di euh, lu fii benn tiwo bu ndaw lañ fi def moo tax ndox mi du dem bu doxee tuuti rek mu fattu bu fattoo rek fii yëpp ndox lay doo ndox dootul dem fen ndox mooy suñu jafe-jafe ndox bi xëy na sax yàlla moo ko indi ndax taw moom taw yàlla la mais ku sañoon tamit bu tawee ba sebet nga mën a génne dox doxi say soxla mais fi dëkkuwaay bi metti na metti na metti na ba ci kanamu yàlla. problème bi ñu am li ñu ko teg dëgg dëgg dëgg mooy tuyau bi nga xam ne moo jaar fii li tuyau bi jaar fii ñun mooy suñu problème moo tax léegi ndox bu fi jàllee du mën a dem liggéeykat yëpp taxaw nañu kenn liggéeyatul fi mu nekk li ma waxoon commerçant yëpp kenn liggéeyatul sama place nga ne jaayatuma benn activité doxaw ko fi. diggante xataay yoon yi ak ñàkkum cet bi boole ci nag tali nekk ci anam yu doy waax mooy commune bi nga xamante ni rek dafa soxla ñu taxaw ko nag ci wàllum assainissement. tali bi ñu defaraat ko waaw dafa tali du du fii rek fii ngay commencé ba dem Fass Mbao comme nii rek moo fi nekk ba dem Fass Mbao ay ran rang la. tali bi depuis buñ ko nee defar nañ ko defaruñu tali bi baaxul. tali bi moo jëm Fass Mbao parce que fii la ñu yàlla teg ñu fiy suturlaw fii la ñuy fii la ñu boof di fi sàkku barke retourné di fi def suñu liggéey suñu sañoon ngeen defaral ñu dimbali ñu ci tali bi ñu defaral ñu ko defar ñu kanaan yu baax ndox munul ñàkk parce que ndox ndoxu yàlla la taw day ñëw ala kulli mais bu ñëwee li ci baax moom am kanaan yu baax nga xam ne bu ndox mi ñëwee tamit day daal di dem. moom mi nag dafay faxal di amee ndox itam li ni mel nag mu doon lu mun a gàllankoor rek wér-gu-yaram xale yi mu dooleeku si sax ni ñoom amuñu benn bërëb bi nga xamante ni mun nañ fee foowee. ndaw yi amatuñu fan lañu fooye mootuñu fo te xale day fo bu nuy jàngi dañu am problème amatuñu fu nuy jaar pour jàngi ji ndax am na heure yoo xam ne doo ko mën a bàyyi sa kii am na école yu bëri nekk fii école privée lañu tëj tëj nañu. ndax li tax da nga def kon sa doom wala nga def ko kon kii papa bi nga sa sa papa xale yi xamuñu danger parce que ñoom tey jii day xool buñ bu leen neexoon mën nañoo dugg si dugg mën nañoo mën nañoo dugg si ndox mi mën nañoo dugg si ndox mi bu baax a baax parce que mais xamuñu ko mais dañuy wax ne euh, ñu gën ñoo doole ay poste am na fii poste santé nga xamante ni tey jii euh, dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dee tali bi nag maanaam xat na lool ku mu neex rek fi nga neex ngay teg wala gaax yi dinañ toog 4 mois 5 mois 6 mois kenn du génn jaaykat yi nekk fii ñebe demee dootuñu jaay saret yi ñu jàll camion yi dootuñu jàll wala camion yi bu ñu camion yu mag yi yu mënul dem ci mbedd yu ndaw yi mbedd secondaire yi bu ñu ñëwee ndox mi day dugg sunu kër yi yëpp doo nelaw yoo xeeñaay bi foos yi amul lépp lu dund bu bon a bon dund bu kii la ñu dund fi fii nag di jàmm a gën si Kab Mbaaw daanaka commerce nag mooy li nga xamante ni soxna yi ci la ñuy gën a yëngu ci dund bu métti bii nag bi nga xamante ni moo am ci bile gox ñu ci bëri rek ñoo ngi woo ak seen njiit ngir ñu taxaw leen te it faj urgence yi nga xamante ni moo nekk ci commune Diamaguène Sicap Mbao Thérèse Samb daal di koy jaajëfal mu mel ne nag ci élément boobee la ñuy ndar keppee xibaaru benn waxtu gërëm sant ci teewlu gërëm sant itam ah, ci ñi nga xam ne ñoo jàpp ci xibaar yi ba mu yem juróom-ñaari waxtu ah, juróom-ñetti waxtu rédaction bi dana fi teew jukki leen lu ñeel wàllum xibaar laata loolu ñu bàyyi leen seen ay programme de première chaîne privée bu Sénégal ñeenu jàmm